état bi gouvernement bi dafa court-circuité. Mhm. xam nga jot benn court-circuit. Mhm. <laughs> yëpp maas. <laughs> <laughs> circuit yëpp yàqu. Mhm. voilà. Mm. parce que état bu demee ba condamné il y a des délais. Mm-hmm. il y a des rappels. Mm-hmm. il y a des demandes xaw ma lan. Mm-hmm. jugement du mënul génn en même pas trois mois waxtu la six mois. en ñu ngi nii man dama nekk en de xam ngeen ngeen dama nekk <laughs> faju. ñu da a faj. ñu ngi tollu quatre mois ba léegi eh, demagul tribunal. Eh, ñaata mois nga nekk nii tribunal. Hmm? ça quatre mois maa ngi programme wuñ ko sax tribunal dossier yi Sonko nag mën a ñëw ñu bëgg ko mm-hmm. condamné. Mm-hmm. Euh, appliquer condamnation bi. Mm-hmm. ci même pas trois jours. même naa ba suñ ko jële fii benn vendredi la. ah tëj ko xaw ma <laughs> kii defe naa demul tribinal sax. <laughs> ñu bëgg a appliquer condamnation bi. waaw tas parti bi te même publication condamnation rek day jël temps. publication condamnation rek day jël temps. donc <laughs> gaawantu bi ñu ci wax bëgg a jël léegi. parce que yi ñu jëloon yëpp doyul. doxaankat violekat mhm. euh, euh, mhm. euh, diffamateur mhm. yooyu yëpp doyul dañu gis ne ko doyul pour dindi élection man daal am na benn mot daal na na ko Sénégal yëpp jàpp les trois P mooy yan ak trois P yan la trois P waaw président prison ah, prison prison palais palais ah loolu moom na waate kon maanaam yoon bi loolu la daal voilà ok yoon boobu loolu mooy Mandela. Hmm. mu noonu la Mandela defoon. ok hmm? uh-huh. jóge prison dem directement palais. directement palais. Hmm. da nga jàpp ne Ousmane Sonko day jóge prison dem directement palais. bu ko quatre vingt dix pour cent yi Sénégal yi bëgg a nekk ci biir Sénégal. Ah, amul beneen yoon no way. amul beneen yoon booy mën a jaar. alors quelle est la solution lan nga lan nga. la solution nee naa la euh, dëkk bi am na lu fi nekk. muy lan. gisoon nañu lu grave. Mm-hmm. troisième mandat. Mm-hmm. te ñëpp jóg ci. Mm-hmm. on est arrivé en résultat. d' accord. boobu nag def naa c' est les Sénégalais même. qui réglé ça. deuxième euh, possibilité tamit mooy on n'est pas seul on fait partie du monde. exemple Juan Branco bi wane na ko. bi nga jàppee benn tubaab nga ne da koy tëj. Hmm? bi Europe jógee da ko bàyyi. c'est vrai léegi nag troisième bii moo ñu dese. Mhm. kii quatre vingt dix pour cent de la population bëgg nañ ko. Mhm. jéeme nga ko créer ba sonn mën na ko créer. ah. créer mhm. ngal ko en dessous de la ceinture affaire u viol. créer ngal ko affaire u diffamation. ngal ko ay yëpp jàllul. quatre vingt dix pour cent population ñu ngi ci ginnaaw. tëj nga ko. mu ngi en prison. yóbbu ko palais. mu jëlee ko prison yóbbu ko palais. les trois P. Mandela defoon na ko. defal nañu ko Mandela. te Mandela ñu gën a soxor Macky. ñoo ko def ñu doon reyaate. ñu bëggul woon nit ku ñuul. ñu ko ñu ko def pendant des années. l'apartheid a duré pendant des siècles. mais fu mu bi population bi jógee. Mm-hmm. orange dëkk boobu sax kenn lekkatu ko. Mm-hmm. xam nga bon y aura une influence a defe naa mm-hmm. les décisions vont sortir après. mais y aura des boycotts y aura euh, des trucs. y aura des concerts yoo def. <laughs> doo ko a def. campagne électorale boo ko def. Euh, bu ñaari nit ñu ne ñaar ñëpp euh, Sonko la wax. di nga li nga xam ne loolu moo ci des. Mhm. alors tey lan nga yaakaar ni moo war a mën moo war a mën a indi euh, vraiment loolu am muy Sonko ñu bàyyi ko mu bokk ci li nga xamante ne mooy élection yi que gis nañu ne euh, euh, Khalifa Sall ak ki nga xam ne mooy nu mu tuddati Karim Wade fexe nañu ba ba dinañu bokk ci élection yi te ñoom ku ne xam ne ne dañ leen fi jiiñ sàcc alal ju bëri fii ci réew mi alors tey naka la ñu mën a def ndax gis nañu ne population bi bokk na ci li ñuy revendiquer toujours di wax ne kilifa diine yi dañoo seetaan te gis nañu ne waaw population bi ñoo koy wax mais kilifa diine yi dañoo war a génn euh, dañoo war a génn wax parce que ñoom tamit am nañu baat ci réew mi yow loolu lan moo ci sa xalaat wax nañu bii mujjee bi passé defe naa mhm. euh, Macky dem na ba kii ñu wax ko li ñu koy wax mhm. yàlla dimbali woon foofu mu sax mu calmé mhm. d'accord waa Tiwaawan tamit ñu ngi wax gis leen sunu sunu xalifa bi dafa feebar temps yi mu maro hmm? mais taxoon na sax bu mu bëgg a bàyyi fajoo a ñi jege nee ma ñu ngi wax. Mhm. booy waxaana ku la dul déglu. Mhm. da nga wax. Mhm. ba dina am ñu mu déglu. ñu mu dégg. mais bu déglu bu déglu kilifa diine ñan lay déglu. dégg na affaire troisième mandat bi bàyyi. ay tubaab jóg ñu ñu mu dégg affaire bul tëj sunu tubaab bi. mu bàyyi ñu ngi continuer. d'accord wax la ambassade yi léegi boo fa demoon message yi ñuy recevoir. ah mënuñ mhm. ko publier. d' accord d' accord. dëkk bu day ni Sénégal buñ ne la am na ku fi def grève de la faim bay pare dee. Mhm. ci affaire politique. Mhm. buñ ne la tëj nga ñi ne ko parti boobu yëpp yaa ngi leen tëj. yaa ngi dindi démocratie. yaa ngi tëj ay parti loo xam ne yaakaaroo duñ ko fenn ci Afrique. amul benn pays d' Afrique fii léegi bu ñuy euh, ñu di ko supprimer. amatul benn pays d' Afrique bu ñu ci à cause de parti ñu di la tëj. lan la fi amati Afrique. Ah, lan dëkk dëkk bii gën a dëkk reculé wul sax mais dëkk bii gën a moins démocratique démocratie sax dafa dem bay atteindre un niveau boo xam ne mm-hmm, mm-hmm. amatul coow mm-hmm. ñun ñu ngi tollu deux deux changements de président hein ñu ngi toll si dëkk bu am ñaati parti trente deux wala soixante. Euh, est ce que waxuñu quarante. dafa mel ni quarante la de quarante candidats ñoo am ci élection yi waaw parti. te ku ba am 41 parti nooy delloo ginnaaw nga naa da ngay mhm. tëj benn parti te jugement tamit balaa nga koy appliquer day fekk ñu ñu matal ko jugement ba mhm, day jël délai surtout d'accord donc loolu daal man de yaakaar naa ne mhm. influence yooyu ñu ngi fii pression yooyu ñu ngi fii pression yi daal mooy moom nga gis mooy garab bi mu ngi koy utiliser actuellement au sacrifice de de sa nañu mm-hmm. yaakaar daal. <laughs> yàlla baax na alors euh, fi ñuy tëjee rek mooy dañuy ñëw ci benn cas boo xam ne dafa xew comme tu es médecin euh, mënuñu toog yow ba jóg te duñ la si laaj muy kaaw la fii bi nga xamante ni euh, dafa dafa génnoon dem elle en état de grossesse ci li ñu wax alors léegi bi mu bi mu bi mu bi mu génnee dem. le lendemain ñu retrouver ko ñu ne bébé bi dañ ko dañ ko kidnappé alors tey déjà en tant que médecin bi nga déggee cas bi ak une femme enceinte presque à terme mu réer lan ban impression la la def ban non Sénégal Sénégal dañu toll foo xam ne ay film fiction doy na waar sos bi sos bi ak inventé bi ak complot yi dañu bëri tellement mm-hmm. que day day day déteindre si population bi mm-hmm. wax naa festival de bu naree am fu ñu koy defee est-ce que dañ a defee Sénégal. Yaraax xam nga festival kan booru géej lañ koy defee. waaw boo jëlee con. pourquoi Yaraax terrorisme bi. <laughs> terrorisme la départ waaw la départ de waaw mhm. film la boo xam ne leeragul. Mhm. film la boo xam ne leeragul. bu ñu jëlee filmu. Sonko bi tata bi fa la amee woon. Mhm. tata bi fa la amee ah, euh, Sénégal daal sos bi ak. Euh, inventé bi. Mhm. ak complot yi ni ñu bare. Mhm. Euh, da nga toll ba dootoo mën gëm dara. Mhm. léegi nag on a des institutions. la police la là. le procureur est procureur wax na. non procureur waxagu ah, si mais tey en tant que médecin rek bu fekkee ni bébé bi dañ ko dañ ko jël comme ko waxee bébé bi ban risque si yan risque la mën a instant bi fan lay accoucher bi ñu jël ko. donc ça veut dire qu'il a dans une clinique ñu accoucher ko génne xale bi. ba bàyyi yaay dem. Ah. non non fiction fiction waaw ah, en tout cas li ma dégg lire daal dégg naa lépp dañ ko inventé de A à na waaw loolu la loolu la ñuy déglu. Mm. loolu lañ hmm, wax procureur dina dem si euh, convoqué médecin yu ko accouché woon bu accouchement amee. Mhm. dañu jël xale bi ñu examiner ko. xam ndax si les enceinte wala nekkul woon enceinte non mais boobu ah man de film de fiction bi nga xam ne. Mm. dañ koy boole ci <laughs> ambiance su. Mm. <laughs> ambiance su court circuit bi bi am Sénégal. Mm. beneen naa la film yooyu yëpp bu ñu leen boole. Mm-hmm. ñu def festival des Cannes au Sénégal. <laughs> waaw léegi doo ma wax bébé bi ban risque la mën a am. bébé bi doo ko judd waaw non bu fekkee ne am na laa wax. bu fekkee bébé bi am na ay kidnappeur yor ko. ci bébé boo xam ne mi ngi doo ko judd. tey ah. bébé boobu ban ban ban risque la mën a am. si si côté santé am ak yooyu noonu. bu demee Fouta ci àll bi fekk euh, infirmier sax gisu leen. ok. seen wërsëg bu seen bakkeen nekkee ci dund nañu dund mhm. Mhm. bu fekkee fii Dakar la nekk mhm. ay kidnappeurs sénégalais yoo xam ne am nañu euh, culture bay kidnappé ah ñooñu xam naa war nañoo war benn infirmier kam ñu xoolal leen wala benn sage ñu xoolal ko xale bi ak mooy defar biberon yi am ku leen defaral ay biberon aussi parce que comme que yaay problème mooy loolu nee nañ ma film de fiction la film de fiction yi nag nee naa ñu ngi bëri Sénégal. <laughs> ba festival de Cannes. Mhm. tey ren euh, yaraax lañ koy transféré en deux vingt quatre. yaraax waaw yaraax de am nañ problème. <laughs> président Sonko dem pré ko. dem a ko <laughs> voilà. jërëjëf ñu ngi ree rek mais dëkk bi lawul nag vraiment man mhm. maa ngi ci tristesse boo xam mhm. xam. dëgg la fan yii yëpp li may dund yàlla rek a xam. lan moo waral tristesse boobu euh, suñu dëkk boo gisee sa dëkk say mbokk nekk euh, en prison. man ñaata la. bëri ñi nekk seen prison parce que seen parents ñu may tous les jours kii de day biir baa ngi metti kii day yaram baa ngi xasan que mm-hmm. léegi day mu ngi kii mm-hmm. euh, nu ñuy def pour considérer mm-hmm. gis xam ne sax nee dafa dem pour gis euh, mooy yaayu euh, l'autre là Pape Abdoulaye Touré ah. pour gis doomam nangu ñu mu gis ko nangul ñu nangu ñu yóbbul ko lekk mu nekk ay conditions yu metti vraiment li ngay dégg Sénégal yërmande bi amoon Sénégal parce que déjà man bi ñuy fetal sax biir Sénégal waxoon naa ne ay Sénégalais. Mm-hmm. du ay Sénégalais ñooy taxaw di fetal ay Sénégalais. Mm-hmm. loolu mënul am defoon naan ay mercenaires la jëli. Mm-hmm. mais da dem bay ba koy dëggal nga xam ne ay Sénégalais ñoo koy def. yow nekk nga ci prison kii dafa a lekk dafa a naan. continuer ay relations avec ses parents. mais condamnation ça veut pas dire que amatuloo benn droit. amatuloo benn droit. donc le retour de ces droits là le retour dootoo doo mën a am jàmm. man ku mu laajee ndax am nga jàmm nga ma leen ma lay wax ma jàmm. Mm. tant que sénégalais yi mu ñu jàmm moom mënu ma am jàmm. Mm-hmm. d' accord kon ñu bàyyi la nga tàggatoo. amoon nañu vraiment plaisir. bon jërëjëf encore waa xaw ma kan mooy Sénégal ah, TV xaw ma seen directeur bi maa ngi koy nuyu. di ko sant euh, am bu neex. Mm-hmm. tur boo xam ne c' est vraiment patriotique. Mm-hmm. ah euh, pour que le Sénégal avance. kon euh, te naa yéen ñaar tey. gis vraiment lu respectueux ci yéen. lu professionnalisme ci yéen. merci maa ngi leen vraiment du succès dans l' avenir. ngeen dimbali ñu ba démocratie. démocratie bi gën a. Mhm. gën a ci biir Sénégal. incha allah dinañ ci def lu ñu mën. Euh, voilà mi ngi noonu mu nekkoon euh, docteur Babacar Niang bu Ousmane euh, assistance moom la ñu aussi xaloon waxtaan boobu doon waxtaan ak moom rek ci actualité réew mi doon leen ko dégtal yéen ñi nga xam ne yéen suñuy internet di nga topp ci télé Sénégal TV di am aussi mbégte ak kontaante ci yéen ñi nga xam ne yéen ñuy suivre fii ci réew mi waaye it ci diaspora bi yëpp amuñu seen fay ñu ngi leen di wax jaajëf di wax jaajëf sama caméra xamante ne moom laa àndal euh, muy binet di sama technicienne maa ngi koy euh, jaajëfal moom tamit bu baax ci liggéey bu set bu rafet bi nga xam ne euh, mi ngi koy def di leen wax rek beneen yoon lay doon ci yeneen i jotaay Sénégal yàlla na fi jaamu yàgg merci beaucoup